Cheikh Ahmadou Lamine Niass euh, lii waral nag sunu teewaay mooy jugee gi nga xamante ni na fa bi ginnaaw bi fi jugee ci atum euh, le 4 décembre euh, mbokk yi nga xamante wala sopp yi nga xamante moom rek la sopp moom rek la bëgg moom moo leen yee ci seen àdduna moo leen yee ci seen ruuxu moom Seydi Lamine Niass ginnaaw bi nga xamante moom la fi jugee nag la ko nañ fi daje di ko fàttaliku looloo waral tey nag ñi dajee ki nga xamante président euh, groupe Lamine Diawara président euh, groupe Soppey Walfadjri Lamine ñoo ngi lay nuyu di la ziar di la talal sunu micro ngeen nga fas yéene wax ci bis bi. waaw asalaamaaleykum wa rahmatullah hmm. maa ngi leen di nuyu yéen waa site internet bi nga xam ne Daaru Salaam TV ak waa Sangap TV ak euh, bépp média boo xam ne teew na ci bis bi. Hmm. jëmm jooju nga tudd nag muy Sidi Mamadou Amine Niass. Hmm. fans club Walfadjri man la yàlla dogal ma nekk ci bopp bi mhm. waaye lu jiitu loolu am nañu ko jiite woon dëgg waaye di la wax ne ku daal mhm. sénégalais bu nekk mhm. war naa xool boppam ci Sidi Lamine Niass dëgg la sénégalais bu nekk war naa gis boppam ci Sidi Lamine Niass dëgg la ndax li tax mooy bu diine ji soxla Sidi day taxaw bu askan wi soxlaa Sidi day taxaw dëgg la te lolu neex na expliquer deug la lu yomb la ndax ko xol cheikhu sëriñ bimu fi ñëwee aduna mhm. yeb la ci yakkar loolu wallahi way ba pënd ba wuré mhm. xam nañu deug dëgg rekkee deug dëgg la ñop mujj nañ ko nangul ci loolu mhm. tay ci tay ji bu ñu tegoon tey li nga xam mom la fi wax rek du soxla nga may inter interview wallahi ndeysana nga xam waxon nako kon nak jëmu ju mel noonu suñu joggé ñun ñi nga xam xamoon nañ ko dembu dañu am mbékté ñi nga xam ñoko ñoo won dembu nak euh motax mané dañu am mbékté li tax deug la ñun ko hmm xamone nañ ki mu doon wallahi moy ñi ko ëmpale woon mhm. xamuñ ko bu mhm. waxé ñi diko ko mhm. ñi diko ko wax naka sudul noonu ñoñu tourné tay ñom bëggal ko seen bop te gisunu ko lolu moo tax ñu am bëkté ñun waaye ñun ñi nga xamné nak bëggoon nañ ko xamone ko bien avant bi ci tay bi mbëkké na ci ñun ndax Cheikh al Islam dafa wax ne boo gëmee yàlla dëgg-dëgg ba ñëwé da ngay ré lan mo sabab euh, groupe sa si di la parce que fans bi lu ko sabab moy dañ ko gis mu nekk ben melokan ñu diko ko diko top ba 2003. Mhm. ci la ñu ne waaw kii nag comme ñun ñu ngi dajee. Mhm. def ay tour mhm. booba li may wax ni Kouthia. mu ngi fi woon. dëgg la di yu extra extra ñoom maa di kay. dëgg la Alaaji Cheikh Ndaw lancé président. ñu di ko topp. ànd moom ànd ak moom. mu di ñu recité nag. pour dire vrai. ndeysaan bu ñu ñëwaan rek. mu mu xaw ñu néewal quoi. bu ñu waxee mu ne non li may bañ mooy. position yi may jël mhm. nit ñi foog na dafa am groupe bu nekk ci sama gannaaw moo tax ma di ko jël dëgg la ndeysaan muy rikki la mhm. ba 19 mars bi nga xam ne moom lañ doon organisé 19 mhm. euh, mars 2019 bi Ablaye Wade bi sonal Walfadjri mhm. moo organisé bis boo xam ne moom la wax 19 mars mhm. bi ñu demee ñu dajee ñun fële ci Parcelles Assainies mhm. def suñu waxtaan mais comme dañ koo bëgg nañu xool nan la def pour jàppale ko ci bis boobu mu réussir yàlla mi dara tëwut am ñu ñëw fittire ñu boobu ministre Ousmane Ngom ak Habib Sy ñoo fi nekkoon ministre l'intérieur jamono jooju ci ñi ñu xam ci la ñu ñeen ne ñun dañu bëgg coup d'état ànd ak Sidy Lamine pour coup jógee si réunion boobu si mhm. la ñu ñu jàpp mhm. jàpp ki ñuy wax Cheikh Ndaw mhm. jàpp ki ñuy wax Malla Jaxate jàpp ki ñuy wax Mor Kassé yóbbu leen police quatre heures ñu def fa presque une semaine après ñu doog leen a bàyyi si la Sidy nag taxaw ne ah comme que bu ñu demee ba état su ma soxlaa su ma mënul a jàpp ñan lay japp moy mhm. fans yi kon yello na tay ma delo fans boobu seen cër macha allah si la jël ci ñun nak yobu ñu màkk mhm. takal ci ñun soxna mhm. bu ci ñun ñaar ñin màkk ndeysaan dem ba mujj bu ñu ñew ci kër gi bu ñu séenee mom moy wacc ak yir ñu dal ñu ay loxom yi tedd yu sel yoy lu muy def boole ñu ci lu muy def wax ñu ko nag loolu lañ ko topé est ce que euh, yeen yeen ngi xam conséquences yi nga xamanteni euh, ginaaw bi nga xamanteni créé ngeen loolu ak conséquences bi lañ ci dal ndaw ñi nga xamanteni ñom ñi ngi bëgg adhéré wu ci groupe bi yeen a ngi leen di nandal li nga xamanteni ni mo leen ci nara a fekk waaw euh, wax nañ leen ko te xam nañu ko. Mhm. moo waral man mi bi ma nekkee ci bopp beeg léegi def ren moo war a nekk quatre mhm. su ma juuma. Mhm. waaye bi ma toogee li ma njëkk a def mooy fexe dajale fan si fexe ñu am këyit. dëgg la dëgg koy récépissé boo xam ne reconnu par l' état Sénégal la. waaye tamit ci ndigalu DC e Mohamed Afis Niass mi nga xam ne mooy doomu Sidi Mouhamadul Amin Niass. donc ci loolu la am këyit. nga xam ne képp koo xam ne yaa ngi ñëw di rejoindre jëriñ journaliste bu mhm. mhm. allah liggéey bi nan lay doxee ci entre yéen nga xam ne yéen nekk ci biir liggéey bi mu seq leen yéen ñëpp ak euh, programme bi ngeen koy doxalee. yow mi ci bokk tey. Mhm. ak ki fi bokk suba yéen a ne képp yam. góor 1000 francs la. moom la dajale. tey boo fi naan nga lekk wala nga pomp ko wala lenen mhm. jappal ni ci ñooñu la joge ben entreprise ndeysaan rek ñoy boole seen buy mhm. seen Dakar mhm. diko def ba at bu jot ñew sargal Sidi Mouhamadoul amin ness way na bu bis bu joté dañu lancer ben tour rek na dañu jaayante tay pour waccay ci lamin ness deug la dañu gis ko xam na da lu fi diwlin mako jox allah akbar gis ko leen lu fi ceeb maa koy joxe gis ko leen lu fi almen mako jox donc ci non lañu jaayante way la buñ banque demuñ fenen ci suñu bi rek lañu fa lijjanti macha allah lan ngay tagato ak lan ngay soñé ñi nga xamanteni ñu ngi ci groupe bi gërëm leen sant leen mhm. bu ngeen ñëwee si bisu Sidi Mouhamadou Amine Niass mhm. li ngeen si war a njëkk a jàngee moom mhm. yéen loolu laa leen di dénk bëgguma ko gis si yéen te bu ngeen waxtee ne Sidi baax na ba nit ñi gëm leen suba ngeen ne Sidi bon moom yàlla defalu ko woon loolu yàlla daf ko defaloon ba mu ne baax na ba tey newut bon na waaye lépp doon xeexit ne baaxul ba tey mu ngi continuer di ko xeex dëgg la mooy ni koo xam ne dafa dund di débat dee